maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di teew fii si ndigalu Serigne Fallou Mbacké transitaire sëñ Fallou Mbacké bi nga xamee ne ñu ngi jub élection locale yi dafa def lu am solo mooy dafa def pré-campagne boo xam ne pré-campagne la boo xam ne bari na quartier yoo xam ne fii ci Touba dafa dem def fa ndox ñi mu jàppale leen ci ay financement ma mën cee lim ay quartier yoo xam ne am na ñu bari ñu dëkk fii ñu fi nekk muy saam taw feex yoonu njurul ak tamit aussi daaru tansil bari na ak tundoo di def fa ndox dimbale jigéen ñi ci ay financement bi ñu ñëwee aussi ba liste bi génn xaritam frère am Serigne Galas Kaltoom mii bi mu ne moom tamit day continuer dugal ci loxoom jàppale ko mais également jàppale président de la république ndax président xaritam la soxnaam soxna Mariam fay Sall tamit aussi xaritam la moo tax mu yëkkati tey lu toll si trente million lim si def si kii beeg léegi danaa ko leeral lim ko onze millions yii moom la jox zone yi nga xam ne ñooy onze zone yi nekk si Touba zone un ba zone onze benn bu ne jox na la un million muy onze million maa ngi nii di ko teg ci loxol Serigne Gallas Kaltoum le candidat tête de liste Benno Bokk Yaakaar bi ñu fa jógee aussi sëñ bi sëñ Fallou nee na moom jox na la million millions en tant que candidat mouvement Madakaw sëñ Fallou Mbacké tamit nee na dina ko jox un million xaalis bi mi ngi nii ci mbuus gi ba ñu fa jógee sëñ seex Mbacké xaritam rakkam moom it jàppale na ko million jox na ko deux millions sëñ Cheikh Mbacké moom it nee na jox na Moussa Thioune million jox na aussi général Diène Gueye deux millions nee na aussi jox na sëñ Khoudous Mbacké cinq cent mille francs jàppale ko ko waaye jox na aussi sëñ Lat ture moom it day sonn ci parti bi un million jox na maam say Mbacké tamit un million luyeel na tamit parti bi ab oto jox ko Khoudous Mbacké un million am na ay jeunes tamit yoo xam ne si ne ay jeunes lañ ñuy jàppale président Macky di yëngu ko ñoom moom it jox na leen cinq cent mille loolu daal Mohamed Sylla tamit moom it jàppale na ko un million kon yaakaar naa ne ak li mu def ci ndox yi ak pré campagne bi loolu soo ko calculer presque dina dem ba trente million loolu nag moo tax mu ne woon nañ ñëw fii ci kanam Serigne Fallou Mbacké Galas Kaltom leeral ko ko xamal na ko ne président lay jàppale xaritam la politique ut waaye nag bu président jógee mu jóg ndax soxnaam xaritam la moom it am na fuñ ko teg moo tax lu ñu nekk dana ca nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullah suñu rakk suñu xarit Serigne Fallou Mbacké transitaire ci jëf ju rafet bi nga xam ne moom la saxoo di ko def ci dëkk bii te dara warul ko lu dul nekk doomu dëkk bi te xam ne am na lu ko fi war muy doom di taalibe di ci sonn guddi ak bëccëg kéemtalaal kàttanam yëg nañ ci lu bari ndax lu jiitu campagne bi bari na fu ay nit dem defar fa ay tuyaux ñu monter ko man sax dañuy ñëw ci man naan ma ñi nga lay sant di la gërëm ci jëf jooju fekk na Serigne Fallou Mbacké transfert moo ko def loolu aussi ma amel naa ko ci cant ak ngërëm ndax jëf ju rafet la te dëkk bu ñu bokk ñu ñëpp la ko jëf ci dafa bokk ci calendrier république bi ñu Serigne Fallou ak ñi fi jot a jaar yëkkati seen alal ñëw ne ñoom tam dañuy fekk ci zone yi maanaam fukki pàcc ak benn yi nga xam ne moom la ñu dagg dëkk bi sone bu ne nekk fay liggéey mbooloo tënku ca mu yëkkatiwaat lim bu toll ci fukki million ak benn ngir ñu jébbal ko zone yi ngir ñu gën a mën a wéyal seenub liggéey ba lii ñuy dox di ko wut au 31 juillet suñu borom defal na ci ndam li ñuy wut nag lenn rek la ñu dolliwaat dolliwaat soññi nit ñi li nga xam ne li ñuy def lépp li ko wund ak li muy jariñ mooy bu ñu àggee aus ci ngoonu fanweeri fan ak benn ñu naan ko 31. Mm-hmm. borom mën ñoo defal ndam. ndax li koy may di ab liggéey ak li koy may seeti nit ñi li ñuy yëg bi ñu tàmbalee ba tey kenn ku ca nekk la la ca war yaa nga ca guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñuy bëgg nag di fàttali nit ñi fu ñu toll mm-hmm. ñuy def seen yitte ci xam ne li koy sottal mooy bàyyi xel lii. très bien. xam ne bu am carte d'identité te war a wote ak fooy wotee ci biir département de Mbacké. bu ñu ci àggee incha allah te nga bëgg a taxawu liste bi ngir mu jàll. président majorité à l' assemblée nationale. këyit bii ngay jël. dugal ko ci enveloppe. te bañ koo kole dugal ko ci urne ba nga dem toog boole dolli sa yar ak sa teggin bañ a bokk sax ci fu xaj-xaj di maam. jalof-jalof bu génn képp koo xam ne bëgg ngaa dëggal jëf ji nga xamante ni président mi ngi koy def ci Touba mu mën koo yeggale ak jàmm ba tàmbali fi yeneen eggale ko da ngay wat ci liste képp it koo xam ne yaa ngi gis sunu jëmm ak jëmm yi nekk ci image bi ak yi fi nekkul tey le président Macky Sall te am loo xamante ni seq ko ak ñun te bëgg ñoo jàppale kii na nga ko jël bu ñu àggee ci le fanweeri fan ak benn muy le 31 juillet def ko ci enveloppe bi dugal ci urne ba dem toog déglu résultat yi xam ne si jëf joojee mooy mottali li ñuy may ndam ñoo ngi lancé appel bi képp ku dëkk ci département bi liggéey bi day soo ko tàmbali jeexagul ñu soññeeku ci seeti nit ñi rawatina porte à président zone yi ñi ngi ci woon guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñoo ngi leen ci soññi yëg nañ liggéey bi ñuy def kenn lañ koy defal muy son excellence président Macky Sall pour mu am ndam incha allah rafet nañ ci njot leen di soññ mais aussi ñi ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen wér ak kàttan ak wér bu ngeen mën a yeggalee liggéey bi aussi di ko rafetlu parce que bi ñu tàmbalee pré campagne bi ba suñu jonni tey li ñuy umpanteeg yéeg bariwuñ ñi ngi leen di gis wala ngeen ñuy gis ñu leen di dégg wala ngeen ñuy dégg yëg nañ li ngeen di def njariñ li muy jur nañu gëm ne lu ñu ci xëy def dañoo war a xëy wuti leneen lu ci dolliku loolee nag la koy nit def am ba mën koo def mooy wér yàlla na ko suñu borom def seen jëmm yi ñu jëkk ci jëpp suñu borom jërëjëf